di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di seetaan ci Equivox TV mbokk yéen nuyu nañ leen di am mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk ñu leen di indil nag information yi nga xam ne day jógee ci arène bi ma ci ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami Diouf maa ngi sant naka suba si sant ak mu leen ziar leen ñaanal leen jàmm sàkku ko ci ñoom tamit. voilà Babacar kon mbokk téléspectateurs yi bu baaxee rek ñu dem seetaan revue des titres asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 24 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy fesal maanaam la nga xam ne nii daal moom moo di Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 Modou Anta Diène Kaïré ak Fallou Ndiaye Gaston Mbengue daal ñoo xëy tey ne fàng daj ci xët bu yëkku yëglikaay bi di sunu lamb la ko waral nag yëglikaay bi démb dafa ñëwoon ci nag daja ba nga xam ne amoon na fa nga xam ne moo doon ca CNC ba doxoon ci diggante promoteurs yi ak ña nga xam ne ñoom ñoo di waa CNC bi gi yore lamb ji mel ne ki nag wàllum wiklu ba moom moom lañ doon waxtaane waaye dafa mel ni daal mbiree moom fa mu mujje ak déggoo amul ci promoteurs yi ak nañu war a taxawe ci wiklu ba parce que ñenn ña moom la gis mooy bu leen état bi jàppalewulee maanaam du ñu mën a organiser lamb tey suba waxi noppi mu mel ni ki nag Fallou Ndiaye moom loola la gis jàpp na ne daal ñoom ak ñamu àndal boo bëggee dégg-dégg moom bu bu état bi génnul jàppale leen xalaatuñoo sacrifier seen bopp naan dañu organiser te kenn du fa ñëw ñuy sànni seen xaalis ndax seen xaalis nag daal kon maanaam ak ñàkk déggoo am na démb ci diggante promoteurs yi Gaston Mbengue moom la mu gis mooy jàpp na ne daal loo ci mën a dégg moom dana organiser la 4 avril waaye itam du ca yem ndax dina fexe ba dajeeg Matar ba jéem a waxtaan ak moom daal ba lu toll ci 3000 jàpp mille 5000 bu buñ ko mënee may promoteurs yi ñu may leen ko ngir làmb ji ñu mën ko organiser mbir yi mën a dem yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw wax nu lool beneen promoteur boo xam ne nii moom loo ci mën a dégg la Gaston a def moom la koy fekk si muy sëñ Moodu ñaa l'écran sëñ Modou Ñaay itam na ne daal moom dana organiser ca huis clos wala boog sunu lamb ñëw wax nu ko xamal nañu ne daal le mars moom moo yeboo xaar sëriñ Modou moo di Jaxate ma nga xam ne nii moom moo nekk fa nga xam ne moo di ca Tëngéej teñ naan ko Ronaldo sunu lamb xëy tey ñëw nu wax lu mel ne ki noonu duñ fa yem yeneen combat ngi yoo xam ne ni moom yëglikaay bi ne na am nañu ay date waaye li am ba des daal mooy soo bëggee dégg dëgg moom yëglikaay bi ne na jàppal Lac de Guiers 2 Eumeu ku ne xam ne ne léegi la 4 avril la Balla Gaye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Bombardier ñu nga naan mois de juin la Modou Lo ak ka nga xam ne moo di Ama Baldé tamit ñu nga naan mois de juillet la yëglikaay bi nag nee na li jaaxle mooy ñaari combat ngi yoo xam ne daal loo ci mën a dégg ba tey ji kenn xamagul ñoom seeni date kañ la bokk na ci ka nga xam ne moo di tafaatin ak ki nga xam ne moo di Boy Niang ka nga xam ne nii moo di Papa Sow ak Siteu yëglikaay bi daal jàpp na ne loo ci mën a dégg moom combat yooyu fi mu nekk nii moom maanaam loo ci mën a dégg date ya daal lees xamul lees ci mën a dégg itam lu mën a xew daal mooy même ay date yooyee buñ ko xamee ak yecedes buñ ko xamul tamit li ñu xam moom leer na te mu jóge ci CNG bi modalité ya nga xam ne ni mooy ànd ak huis clos daa mel ni daal trois cent personnes daal la ñuy autorisé ci la nga xam ne nii moom moo di enceinte ba sunu sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko ka ko xam nag dafa mel ni mooy ka jiite làmb ja di ka nga xam ne moo di Bira Sène la nga xam ne nii nag moom la xëy wax ko daal ne na ñëkk ka nga xam ne mooy organiser moom ca huis clos ba maanaam des na ko may ñaar fukki nit ci ab structure am ñoo fay teew arbitre ya tamit boo xoolee juróomi arbitre ñooy ñëw ak lu toll ci fukki superviseur ak ñeent ba tey bira seen mooy wax ak ñetti médecin ak yeneen yoo xam ne ni des na ca desaat ca desaat ca daal noonu la ko bira xëy tey waxe ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ki nga xam ne nii moom Issa Diop lan kay wax te mu jiite woon fa école de Balla Gaye ay at xëy na tey di wax ci diggante Double Less ak Mbaye Guèye ne na ku bëggoon Mbaye Guèye laa waaye loo ci mën a dégg moom lees da koo daan ñaari yoon loolu moom mooy ay waxam loolu xëy na tey ñëw di ko wax ba doxoon ci diggante Balla gay numéro 2 ak Tapha ñëw na di ko fàttaliku ca metti ga mu metti woon ak la ca amoon parce que moom ay nee ay sëriñam waxoon nañ ko ne li am ba des moom Balla day daan Tapha waaye nee na itam terewul am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ko doon wax ne daal séeréer si moom takku nañu ba dëgër ngir fa yéene jàppale Tapha Tine ngir mu dóor Balla Gaye numéro de mu daanu yëglikaay bi xëy na tey seq mu waxtaan moom Issa yemu ca jàpp na ne tamit ci atum 2005 wala boog atum 2015 Issa Diop daal la moo xam ne nag kii di Balla gay 2 meroon na ba yegg ci lool ba la mu décidé woon sax moo doon génn école de lutte Balla Gaye dem wëri leneen yëglikaay bi xëy tey ñëw séq ak moom waxtaan mu yaatoo yaatu mu ngar daaju fa wax fa lu leera leera leer moom mi nga xam ne nii daal moom moo di Issa Diop jiite woon école de lutte ba tey bu nu continuer dem record record moom lan fay fekk ba tey rek mooy la amun dem ci arène nationale maanaam daal dellusiwaatu compétition yi nga xam ne ñoom ñooy làmb ji maanaam boog reprise ba mel na ki daal loo ci mën a dégg moom ña ca fas yéene dugg daal yëglikaay bi xëy na tey dikkati ca rek deux cent trente six ba trois cent personnes daal yoo xam ne nii ñoom ñooy admis ci wàllum la nga xam ne nii moom moo di làmb ji ñoom ñoo ci nar a dugg waaye tamit yëglikaay bi ñëw na daal démb ca tukkee woon fa nga xam moo doon ca waxtaan wa moom record Fallou Ndiaye ba tey daal la mu waxoon fee rek ba tey moom la ñu yëgli kay bi xëy tey xamal na ko maanaam nee nañ daal li leer ba leer ñoom parewuñu ngir def huis clos ci yi condition Bamba Faye tamit loo ci mën a dégg moom ne na li am ba des daal gisagut loo xam ne ni lu leer la luy war a mën a tax ñoom itam ñu dugg naan dañuy def huis clos waaye Gaston moom nee na moom loo ci mën a dégg moom organiser dana ko def ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di record rek loo ci mën a dégg ñëw na ci làmb ja nga xam ne moom mooy lutte olympique ba ak qualification yi nga xam ne nii moom moo war a am ca JO ya nga xam ne nii mooy championnat d'Afrique yi war a am mu ne Sénégal naka lay préparé wo ngir pare waajal la nga xam ne moo di marat xëy na nag fësal ka nga xam ne moom moo di Isabelle Samb ak Caaka Fay moom journal bi nga xam ne moo di record waaye leneen loo xam ne ni moom ku yebu waajal ko wala loo ci mën a dégg borom mu ngi koy waajal muy ka nga xam ne moo di Fàllu Njaay mu ngay préparé daal galam ba nga xam ne moom la war a def ci week bi nu jëm fa nga xam ne moo di ca Gambia wala boog ca Fass Njaga Coy moo loo ci mën a dégg un million deux cent cinquante mille nga xam ne moom la fa teg waaye la ca la neex nag mooy yëglikaay bi ñëw na ci mooy rëg-rëg ma nga xam ne nii daal moo fa nar a nekk koo xam ne ñëpp moom lan fay xaar ndax nag li am ba des xamal nañu ne daal moom lañ fa fas yéenee sargal loolu mu ngi ci tuusi yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record kii moom loo ci mën a dégg tukki woon na ñibbisi na muy idaali ñi ngi ma jiite ñi ngi production yëglikaay bi xëy nañu xamal tey daal ne idaali ñibbisi na Sénégal ginnaaw ba mu demee fa nga xam ne moo doon ci réewam Turquie def fa ay fan record a xëy wala boog sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu Babacar suñu làmb daal di dikk ak ñun ci xëtam bu njëkk ci organisation huis clos bi nga xam ne rek ñu ngi ko bëgg a dëdmal sans appui état bi promoteur ya daal di ci euh, divisé wu daal maanaam ñàkk déggoo waaw démb ñu nga foona ah, defe naa loolu lépp xibaar yooyu mu ngi ci Equivox waaye tey suñu làmb at na ci mu mel ni kon démb daal bañ fa génnee loo ci mën a dégg moom bokkuñu benn kàddu parce que am na ci ñoo xam ne surtout ñuy gën a bari ci ñoom ñoom jàpp nañ ne mënuñoo organiser làmb ci yooyu condition yaa ngi dégg parce que tamit jàpp nañ ne ñoom làmb joo xam ne amul benn jàppale ci maanaam public ñëwu ci du ñu ci am parrain bu leen di dimbali wala benn démarche benn sponsor wax ne leen jàppale ne loolu su keroogee ñoom day metti ci ñoom defe naa nag olof a ko wax a ah, bët du yéen waaye xam ne lu bopp attan te ku wéet xam sa bopp am na loo xam ne moom boo fexee ba dugg ci te attanoo ko su keroogee bay booy woote wala dina fekk bay wéy mbuus te loolu itam du ko jaar kon ku ne da def la nga mën wax la nga mën boo tëddee nga nelaw kon li a def tamit ñoom yeneen promoteurs am na ci ñu ne sukkandiku ba ne dañuy organiser ami parce que lu ci nekk rek ka kay def xam na la tax mu koy def te am na fu mu ko teg kon defe naa mbir yi noonu la demee pata sama gënal ñam bi nag kuñ ci tëj ca avocat daa baaxul <laughs> dëgg la <laughs> waaw voilà combat yi ñu muy bu tafaatin ak Boy Niang 2 Papa Sow ak ñu ngi koy waajal te ba léegi kenn xamul date bi waaw parce que yëglikaay bi loolu la xëy tey laaj euh, bu dee la lak ëmmale la 4 avril la Balla Bombardier mois de join juin la ñu wax mhm. amaat ak Moodu mois de juillet la wax yàlla nañ ko fekkete tal ko yépp mu des ñaari combat yoo xam ne yëglikaay bi neen xamuñu seeni date actuellement muy Tafatine Boy Niang Siteu Papa Sow ah loolu nag li tax lépp parce que Siteu Papa Sow moom bu yàlla defoon jàmm kon waxoontuñu woon leneen heure bi bëréwoon nañ bi bu yàgg ndax jàppoon nañ date ba def signature yaak lépp ba mu des ay quelques jours mais corona ba ñëw yàq ko Tafatine ak Boy Niang tamit ba ko waa naa ne kon na boor mais malheureusement mooy rek corona bi mën a dem parce que tamit affiche yi vraiment askan wi soxla nañ ko te dafa nekkoon demande sociale ci waa làmb kon ñu ngi ñaan yàlla rek promoteurs yi nga xam ko tëgg muy Pape Abdou Fall Pape Thialis Faye ko lépp nag fekk corona dem bàyyi ñu daal Serigne Modou Niang rek d'accord na ci wiikaloo bi ndaxte pare na pour euh, tëgg rek combat Diegane ak loolu la wax ah Serigne Modou Niang moom xam nga tamit promoteur bu mag la moom defe naa tey à part Gaston Mbengue <laughs> moom mooy doyen promoteur yi parce que moom Gaston. ak lig wax dëgg yàlla promoteur yi ay ancien la ñu après par la suite ci la ñeneen ñi doog a ñëw euh, kon defe naa tey bu ne ah, li ma la ñu ngi koy ñaanal yàlla mu réussir ko amiin ki nga ñu loolu moom defe naa ne loolu la ñu wax ci huis clos bi 300 personnes euh, la ñu a wi autorisé ñooñu ñu dugg ah comme huis clos la wax loolu nag defe naa ne kon mooy loo xam ne daal kon huis clos ba moom loo ci mën a dégg gars jël leen décision bi nga xam ne ni maanaam ci huis bureau bi ci noonu lañ ciy demee muy ñetti téeméeri ñetti téeméeri nit yoo xam ne ñoom lañ fas yéenee bàyyi ñoom ñooy dugg ci biir li nga xam ne moom mooy enceinte lamb ji. 300 personnes tuutiwul ah waaye li tuutiwul loolu kay mooy kenn duggut. 300 personnes ci lamb loolu boo ko xoolee du public du public bi de pour nit ñi bañ ko jaar du public loolu ay accompagnant la ay médecin la ay arbitre la presse ak lépp boo xoolee ak ñiy organiser ñu ngi ci biir waaw bu ñu jógee foofu ñu dem seet ki nga xam ne rek moo di Issa Diop nekkoon ancien président école Balla Gaye 2 moom nag daal dina xam leen ne rek kii di Balla Gaye en 2015 tuuti mu quitté li nga xam ne moo di école ba ndax maire moo jiite woon école Balla Gaye Issa Diop ah yàlla dogal bi mu bàyyee Moussa Ndiaye remplacé ko ah mu mel ni kon loolu xam na rek day day am ci njabootam ah, des fois parce que Balla gay 2 moom loo ci mën a dégg tey xëy na mën na mer ci biir école Balla Gaye am lu ko naqari ba ba xalaat sax ne day bàyyi waaye yaakaar naa du mën a sotti parce que li tax mooy moom mooy école Balla Gaye école Balla Gaye mooy moom parce que loolu mooy li mu wane parce que li tax mooy bañ ko sosee école ba bàyyi Balla Gaye Ndour yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ba mu ko sosee Balla Gaye 2 la fa formé les de ñoom Elton ak yeneen i mbër ba ñu nekk tey ay champion ay mbër waada kon defe naa ñoom xamuñu fenn fu dul école Balla Gaye mënuñoo dem feneen dafa nekk nag nit ki fi nga nekk ami fi ngay bëggee mais des fois fi ngay amee naqar mais loolu moom mooy àddina quoi dëgg la mhm. ko fasaloon fekkar fa nag ci xaajaloo yi nga xam ne promoteurs yi daal dinañ ko xaajaloo ci 300 personnes yi nga xam ne ñoom la ñu pour huis clos bi. wala waaw wala ci reprise su. reprise su euh, compétition yi la ñu xam la ñu déggoowul. waaw mooy li am démb rek déggoowuñu ah parce que ñii bu ñu naree tëgg ñi ci des moom nee nañ mënuñoo tëgg ah mooy li mu waxoon sànq rek li am solo nag mooy nun dañuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla def daal jàmm daal balaa sax la 4 avril boobu Gaston di a jot mm-hmm. yàlla def lépp mën na dañ ba ñu mën a ñu ma bi mën a ñëw parce que loolu la ñu bëgg quoi parce que promoteurs yi encore une fois ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay ah. ku ci rek li ngay def ci sax poos ko def parce que làmb du loo xam ne lu ñuy maye la a ay moyens am say lijjanti tëgg kon defe naa promoteur ak promoteur moom ñoo bokk nday ak baay te defe naa ne ñoom bu ñu doxee làmb ji dox mais suñ doxulee rek làmb ji day taxaw te souhaité ñun ñun làmb ji di taxaw te mooy kan yi ñaanuñu benn promoteur mu yem ay jafe-jafe ci li muy dugg dëgg compétition jeu championnat championnat d'Afrique ba fële ca Maroc Sénégal di ko waajal fu mu koy waajalee waaw waaw nu mu koy waajale ah waaw xam naa daal loo ci mën a dégg nañ leen jàppale ñoom Lion Lion yi ak Lion yi mm-hmm. parce que gis nañ ci photo bi Isabelle Zambou gis nañ ci Aka muy ñoo xam ne ni defe naa ñu ngi défendre couleur nationale li ci am solo nag dañ koy wax di ko waxaat gis nañ des fois nit di jooytu par rapport ni ñuy traité équipe nationale liñ fiy dugal ci ay médailles bari na macha te kon defe naa ñu ngi leen di ñaanal rek ñu préparer leen ci ay conditions yu baax pour que bu ñu demee foofu rek ci championnat d'Afrique mën di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaan si àddina bi di fi yàlla jeexal mais tey tamit di nuyu ko xam ne nii lakos bi ma xëy moom ma ko jox ah muy milk soap nekk fële ca Gueule Tapée Malick Ngom ah di doomu Bawol ma koy bu baax a baax a baax a baax dëkk fu ñuy wax Mbomboy Refan ñëw mu jël jean wala lakos wala la semis jàmm ne ma solo <laughs> dinaa la fa yóbbu sax xam nga yëri góor yëri jigéen ñëpp lay jaay mu nga gël tàppe non dinañ fa dem mu nga koñu gomis ma lee Ngom waa dinañ ko seet si maa ngi koy nuyu di nuyu rakkam papis di nuyu waa Mbomboy Refane yëpp tey di leen ñaanal jàmm di kontaan ci waa Sénégal nañu ah oui bon saf na kii ah oui attention Jackson d'accord